actu du jour ami internet yu 24 actu yi bàkk ba jibati nañu jukki leen rek li gën a fës uh, ci biir uh, internet bi dañu koy dooree rek uh, coowulu Ousmane Sonko li nga xamante ni bi mi ngi wër rek di lëmbee mim réew ginnaaw rek ci viol ak menace de mort bi nga xamante ni rek benn masseuse daal dina ko koy jiiñ ci noonee rek démb la ñu daal di jot nag benn ojo bu patron wu aji Sarr bi rek daal di le ne kii di Ousmane Sonko li ñu koy waxal rek dara laale wu kii di Ousmane Sonko buy ñëw rek ca daal ba dafay muuru kanamam daal di jël rek ab capus rek ngir bañ rek kenn ku ko xàmmee ndax nee na masseuse bi daal li moom ne dañ koo fay waaye dara amu këram jëkkëram mi ngi fa te am na ñeneen ñoo xamante ne bii ñu ngi ci biir kër gi kon bu doon viol am na dinañ dégg ay yuux wala dara waaye bis boobu dégguñu dara loo xamante ne nii rek jëm na ci wàllum viol ak yu ni mel ndax nee na moom Adji Sarr bi muy génn rek ca kër ga ab oto bu ñuul kukku rek moo ko fa daal di jëlee te déggoon na ko sax muy wax téléphone ba boole koog benn stagiaire ngir mu ànd ak moom rek daal defal kii di Ousmane Sonko massage waaye nag moom Adji Sarr dafa fexe rek ba génne stagiaire boobu moom nag mu daal di continuer boobu les massage noonee nag la daal di xamee ne kii di Adji Sarr dafa taqal rek Ousmane Sonko ndax nee na dégg na ko muy wax téléphone am ñu koy sant rek bëgg ngir gis rek sperme Ousmane Sonko ngir ñu mën a am rek preuve ngeen baal ma rek ci kàddu gi waaye noonee rek la ndaw si daal di xam xamle ginnaaw rek ba mu dénkee ay kàddoom Vox Populi ak les échos mi ñu xamal rek yooyu les information ndaw si daal xam la ne ne kii di aji saar dafa taqar rek Ousmane Sonko dañu ko fay xaalis ngir mu daal di wax rek wax ju ñaaw ji waaye viol amu ca dara rek laalewu ca ndax nee na kii di Ousmane Sonko amewul benn comportement bu ñàkk fayda boo xamante ne bi lii ñu ko koy taqar rek mën na koo def ci coowul Ousmane Sonko rek ci la ñuy daal di dese ni ndax gis nañ démb rek ci aljuma ji kii di Ahmed Khalifa Niass daal na ci yëkkati rek ay kàddu ngir xamle ne kii di Ousmane Sonko li ñu koy jiiñ rek mu di viol répété ak menace de mort bi nekk na ay accusation yoo xamante ne nekk moom jaaxal na ko ndax nee na Ousmane Sonko mi ngi nekk polygame am ñaari soxnaam te tamit teewul dañoo muuru te nee na naka la ko xale bu ndaw rek di maase rek ci benn kër te nee na loolee sax l'islam daf ko ne moom Ahmed xalifa Niass nee na dafa am respect bu baax a baax ci Ousmane Sonko bu fekkee ne rek moom Ousmane Sonko taxaw na weddi ne mësul dem rek ca kër goo xamante ni bii doon nañ ko fa maase nee na boobu lee respect dina ko ko delloowaat te dina taxaw rek baalu ko ak publiquement waaye nee na nag tànk defu ko kon nag boobu lee respect daf koy daal di nangu rek ba mu set wecci ñu àddu ci leneen wax bi la yoon rek ci Assane Diouf ginnaaw rek tëjee woon kaso mu daal di nag am liberté mu démb rek la njëkk a def première sotteem foofee ca Sen TV ci noonee rek la ñu ko daal di posé ab question di ko laaj rek tànkam boobee nga xamante ni bii ah, déggoon nañ ne doon na métti rek ca biir ah, prison ba moom xam le ne ne l' administration pénitentiaire bi moo ko daal di damm ginnaaw rek ba mu jëlee rek ab buntu bu toll ko deux cent kilogrammes daal di ko koy sànni rek ci tànk ba ca noonee rek la daal di dammee ñaan procureur de la république ngir mu xoolaat bu baax baax doxinu euh, l'administration pénitentiaire yi ci biir prison ndax nee na foofee injustice rek la ñuy daal di doxalee ak ña nga xamante ni bii ñoo fa daal di nekk ki yëkkati rek yooyu les kàddu moo di euh, Ousmane Diouf. Euh, ñu àddu ci leneen ginnaaw rek Félix Mboup ba mu yëkkatee rek ay kàddu nekk nag ab syndicaliste daal di yëkkati rek ay kàddu ngir xamle ne masque yi ak gel yi nga xamante ni bii kër docteur digle na ko ngir xeex jàngoro ji di Covid 19 nee ne amul rek benn yoon ci école publique yi moo ko daal di xamle école publique yi amuñu benn yoon lii di gel ak masque ngir jëm rek ci xeexum jàngoro yi ak Covid 19 bile. ñu àddu ci leneen ci diwaanu Yoff rek la ñuy daal di jubali la ñu fa fekk rek moo di benn yaay ak ay doomam yu tëddoon rek ñoo daal di faatu ginnaaw rek bi nga xamante ni bii saxaaru cuuraay daal di nay rey rek ñaari doomam yooyee ñu ngi tuddoon rek Mariama Diallo mi ngi juddu 2010 ak Sadio Diallo juddu 2019 mu nekk nag xale yu ndaw seen yaay jii di Adama Bari moo daal di rek taaloon rek cuuraay ginnaaw rek ba mu tëjee boobu lay nekk saxaar si rek daal di jàpp xale yi ba daal di leen faat yëf yi nag mi nga am ci guddik 31 jàpp 1er euh, janvier foofee rek ca Yoff xale yi rek dañoo daal di faatu ginaaw rek bi nga xamante ni euh, sapeur pompier ñi ngi def rek ab alerte jëm ci mile mbir ngir saxaar yu metti yi nga xamante ni bii rek ñi ngi koy euh, tëjuwaale ak xale yu ndaw yi dañu koy jeexale rek benn ñaawteef bu am ca diwaanu Thiaroye sur Mer benn nijaay rek bu doon violé ki nga xamante ni moo di ab jarbaatam jarbaat bi daal nay xamle ne nijaay ji daal ginnaaw ba mu ko joxee rek ab kaasu tee ba ko naanee rek ci la daal di gëjee xam rek lu xew ci noonee rek bi mu yeewoo daal di gis rek yëre yi daal di euh, am ay tache sperme ak deret ak li nga xamante ni moo di méttitu biir daal di koy dal ci noonee rek la daal di xam ne kii di nijaayam ji daal def ko daal di euh, violé analyse yi nag daal dina koy dëggal ngir xam ne ne ndaw sile dañu ko daal di violé waaye nag nijaay ja jàpp nañ ko ba daal di koy euh, déféré mu nekk nag ñaawteef boo xamante ni nii rek ma nga xewee ca diwaanu Thiaroye sur Mer lii rek moo fi gënoona a fës ami internet yi di daje lay doon ba ëllëg ak jàmm